jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimila ci xibaar bar gi li ci gën a fës dañ am yeneen faram fàcce ko dara nag doxatul ci mairie bu Kër Massar Moustapha Mbeng mi maire ba jaaratul ah, taal ak lenn ci conseil municipal yu ca gox ba gannaaw bu ñu gisee ne ah, dafa jëmmal ab hangar ca marché ay na madi te laaju ci xalaatu conseil yi ah, téeméeri million moom la ñu wax ne moom la ci fas yéene dugal loolu nag jur ab xëy mi ci conseil yi ba tax ñu yëkkat seen kàddu di sàkku ak leeral ci xaalis boobu la ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral yi moom lañ ci indi askan wu dëkk ca Taïba Ndiaye ca Thiès kontaan nañu du góor ñoo maas wàcc ci mbedd mi takkaay sagar yu xonk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 ci xibaar yi dara nag doxatul ca mairie bu Kër Massar Moustapha Mbeng miy maire ba jaaratul tal ak leneen ci conseil municipal yi nekk ca gox boobule gannaaw ba ñu gisee dafa jëmal ab angaar ca marché ay nomadi te laaju ci xalaatu conseil yi téeméeri million moom la ñuy wax ne moom la ci fas yéene dugal loolu nag jur ab xiini mi na ci tax ñu yëkkat seen i kàddu ak leeral ci xaalis boobule gannaaw loolu Ousmane Cissé ak ñi mu àndal ña ngay ñaalu taxawaayu sous préfet Oumar jaax mi ñu ne te dewul njaaxaanaay ci mbir mi ab ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon doxoon seen diggante ak taskatu xibaar yi Théodore Semedo la ñu fa yebaloon. fippu am na si maire bu Kër Massar yenn conseillers yi nga xam ne ñu si doxalinu maire Moustapha Mbeng ñoom de ñu ngi duut baaraam am na lu lëndëm ci benn projet boo xamee dañuy defar marché Aynou Madi lu toll ci cent millions. lu ñu bëgg mooy xaalis bi fi ne ñu leeral ko. cent millions cent ci taabal bu nekk cent euh, cent soixante onze taabal taabal bu nekk deux cent cinquante mille ñaata la ak yeneen fukki taabal yoo xam ne benn bu nekk euh, cinq cent mille ñaata la ñi ñu doon commencé deuxième hangar bi loolu nag lañ bëgg mu leer la ci xaalis Keur Massar moom ko ñu dugal ko trésor mu ñëw Keur Massar jigéen ñi nga xam ne ñoo ko fa def ñi mën a am ay këyit ñoo xam ne bu ëllëgee maire bu fi mën a ñëw ak ku mu mën a doon da nga leen mën a bàyyi ñi mën a nekk seen mën a liggéey conseiller yooyu di am njort ne kii di sous-préfet arrondissement des Niayes Omar Dia daf ko ci jàppale nee nañ boo moytul dañ yóbbu mbir bi fu mbaxane doone benn c'est des éléments yoo xam ne dinañ ci dox jëm dem ci kanamu yoon moom buñ ko waree attaquer devant la chambre administrative de la cour suprême danañ jël ah commettre avocat boo xam ne moom moo ñuy conseiller ñu attaquer li nga xam ne moom mooy loolu mu def noonu. dinañu wax ci ban base légale. la teg li nga xam ne moom mooy doxalinam bi moom moo jël ci kaw sukkandikuwaay yu mu am arrêté 846 bi nga xam ne ci marché Kër Massar yi euh, Aynu yi ji nañ fa loo xam ne jaaxal nañu parce que 2015 woote nañ fa ba euh, woote nañ fa 30 millions ne dañuy réceptionné hangar yi gisuñu ko 2016 euh, ñu woote 22 euh, millions ngeen di waat ko ñu wattu 22 millions gisuñu ko mais li ñu gën a jaaxal 2017 2017 2018 ñu fekk fa ab hangar boo xam ne tabax nañ ko ba pare seen i waram ne dañoo jëndee euh, taabal bu nekk 250 000 ba ñu commencé waat beneen ci ñun conseil municipaux yi loolu yëguñu ko. L'Italien qui était là du temps de Mbacké Diop il s'appelle Perna Massimo Perna Massimo boobu monsieur le maire moo ñëw nangu. ci instrument juridique muy arrêté li nga xam ne moom mooy construction bi mu doon def lan la argué lu mu ko layale mairie du bàyyi ay jàmbur ñuy tabax ci li nga xam ne moom mooy ab sañ-sañam jaraafu Kër Massar Moustapha Mbeng jokkoon na ñoom moom waaye lu ñu xamle ne moom nee na fu mu toll nii du ci tontu te mu ngi bàyyi jaaykat yi ñoom daal di ci wax su préfet bi arrondissement de Niayes Omar Dia moom bu ñu jokkoo moom moom xamle nañu am na protocole d'accord diggante mairie bi jaaykat yi ak promoteur bi ki doon jokkoo yéen fii si Kër Massar Théodore Semedo Walfadjri jaajëf Théodore Semedo ñu ngi lay sant di la gërëm askan wa dëkkee fële ca nañu du du jigéen du mag ndaw ñoom ñëpp ñoo maas wàcc ci mbedd mi takkay sagar yu xonk cur di ñawlu ñàkkum ndox mi ñuy dund ci seen biir gox boobulee Aquatex nag lañu joxoñ ab baaraamu tuuma ne luy nji njaaga ñooma dañuy dem ca Thiès fekk fa Ibrahima Ndiaye. askan wi yeewoo ca Taïba Ndiaye nekk ci département bu Tivaouane ñoom dey ñàkkum ndox bu métti la ñuy dund muy ay métti yoo xamante ne fu mu nekk nii moo te ne la askan woowee ba tax na daal fu mu nekk nii génn nañu rek ngir ñaaw loolee Mamadou Sarr mooy coordonnateur bi. commune dernier jour amuñu ndox. pour nga am ndox il faut nga jóg quatre heures du matin duy ay bidon quelques bidons bala huit heures du matin ndox robinet arrêté pour nga mën cee suturloo ba ngoon to te loolu mënul continuer ñi nga xam ni sax am nañ ay oto dañuy déplacé dem Daaru Xudóos wala Tiwaawan di fa wuti wala Mbooro di fa wuti ndox loolu c'est anormal pour Taïba Ndiaye loolu moo tax population yi génn de manière spontanée pour dénoncer cette situation là askan wi ba tey mu ngi wax rek nañu leeral yorin gi nga xamante ni comité gestion local bi yoroon na ko yenn ci seen bokk moomeel mu jëbbal ko waa Aquatech. équipe bi nga xam ne moo fi jógee neenañ nañ ko comme dangaa jël forage bi joxe ko bëgg nañoo xam yan condition nga ko joxe. nga defal ñu une situation technique une situation financière defal ñu également patrimoine bi nga xam ne moom la forage bi jox Aquatech. loolu la ñuy interpellé équipe bi askan woowee ba tey mu ngi wax rek société bii di Aquatech te yor seen yorinu forage gi na respecté ay kàddoom. nga xam ne ñooy les repreneurs ñoom li ñu wax mooy. ndox bi ñu reprendre distribution bi sans délai et dans les plus brefs délais nañ ko def beneen exigence bi nga xam danañ ko def les nouveaux repreneurs mooy ndox bi nga xam ni dafa yàgg réseau bi ci seen terme de contrat dañu waxoon dañ koy beesalaat fu ci mel ni Taïba Ndiaye dafa màgget population bi yokku na dañ ko war a renouveler waat salaat ko que quartier yi nga xam ni dafa bëri dëkk dafa màgg macha ndox bi ñu yóbbu ko fa ndax ay branchement clandestin moom la population yi def pour a ndox ñoom dañ ko reprendre yóbbu fa ay yoo xam ne jamet dina baax beneen bi sax interpellé nañu waa Aquatex suñu ndox bi ñëpp ñu ngi dute ci ndox bi ndax euh, dagan naa naan wala daganuloo naan li ñu exiger mooy nañu jël ndox bi ñu yóbbu ko ci laboratoire def analise analyse xool ba est-ce que wóor na naan wala wóorul naan. askan woowee ci dund gu métti gi muy dundu ci ñàkkum ndox mi tax na mu ngi ciy woo autorité sénégalaises yi ngir ñu ñëw xettali leen ngir jafe-jafe yooyee ñu fàtte ko ba faw seen diwaan boobee Taïba Ndiaye Walfadjri rajo TV. Ibrahima Ndiaye. jaajëf Ibrahima Ndiaye ca wal suuf nag am fële ci diwaanu Mbacke terrain bi nga xamoo moo jàkkaarloog garbo moom la euh, benn promoteur kon euh, bëgg a morcelé def ko ay terrain mu doon nag ab tere boo xam daanaka ci jamonoy Blaise ba euh, yóbbee askan wi fépp wax ne seen bakkal lañ ci teg waaye terrain boobule xel xalaatul ci àdduna ñu koy def ay kër ndax moom kese lañ am pour di fa tàggatu lu jëm ci xibaar bi dañ ci dellu soit ak suñu naataango bi di Mamadou Makhtar Sarr. toll nañu ci ñaar fukki liggéeykat ak ñaar yoo xam ne ñu nga doon liggéeyee euh, fële ca Robotek di ab kër gu yëngatu ci wàllu animalit nekk fële ci diwaanu Mbacké euh, ci diwaanu Ndar yoo xam ni toog nañu lu ci toll ak ñetti weer yàlla yoo xam ne jotuñu seen i payoor waxtu wu ñu solee seeni i dem seeta ji kilifa yi ngaan kër gi ñu dig leen loo xam ni daanaka duñ ci def dara sama boppam a gënal du bañ naa la seen xaalis la ñuy ñu fay leen ko bara tabaski lu ko moykat lépp lu ñu gis nañu xam ne ne ñoom euh, Salam Fall mooy njiital FGTS section bu Touba bu Ndar am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. boo gisee tey euh, travailleurs yi ñëw suñu siège bi fédération bi générale des travailleurs fii c'est parce que tey dañu am ñaxtu ñaxtu la naqar la. ndax ay travailleurs yi nga xam ni d'abord li loi bi wax entreprise bi respecté wu ci dara. parce que amuñu contrat de te ku leen gis fii Saint-Louis nga xool ni mbedd mi bu setee ñoom ñoo tax. te ñu leen di fay cinquante mille francs. Ah. alors que ñu leen di fay au-dessus du SMIC. ñaareel ba li ñu seetlu mooy yeneen région yëpp yi nga xam te Robotech travailleurs yi ñoo fa nekk ñëpp fay na leen ba mu des ñoom. lii nag au niveau de saint yóbbu nañu seen matériel bi nga xam ne moom lañ doon liggéeyee notifié wuñ leen sax arrêt de travail joxuñu leen benn raison du dul toog leen daan leen fay man personnellement woo naa seen DG DG DGA bu dul benn bu dul ñaar version yi lay yi lay servir am ay difficulté daan leen fay alors que ci information yu ñu jot nee nañu fay nañ leen li nga xam ni tey moom leen UCG amel état bi fay nañ leen lu mel du fay donc tey lii des ci ñoom lay des si dama ni ñii ay baadoola lañu. Ah, na leen fay ah. la ñu ak lu ñuy laaj. vingt deux personnes lañu. ñaar fukki nit ak ñaar. ñaar fukki nit ñaar. te liñ leen di fay madul sax salaire. parce que tey euh, ñaari weer ñetti weer deux mois vingt jours ba pare di dagg seen salaire. ba pare léegi. chaque chaque jour euh, lu leen wax tey version bu leen wax tey dal bu subaa ñu wax leen beneen version. bërki dem rek dégg am na buñ ko tuddee ay ay ay ay soirée ay ay millions lay joxe te ñii seen salaire vingt deux personnes matul sax deux millions ak biir maaka yi muy may donc bala ngay laax jaay laax lekk. Ah. justice su Sénégal bu doon ab njagamaar la bon dañu wax ne ak taram des na ba gis góor bu ko lawat ba mooy dina doon luy jafe ci moom ndax gannaaw magistrat yi politiciens yi askan ñu ay ñoo jóg di liggéey suñu justice bi ñu ne dañoo wane seen péetu lool jëmale ko ci nguur gi mu nag loo xam ne ni Seydi Gassama mi njiital am na Sénégal nee na musiba nar a jur ci réew mi rawatina ci élection présidentielle yi di ñëw Abdou Khoudoss ma Mamy Kanté reportage doxalinu justice fii ci Sénégal dalul xel sénégalais yu bëri te ñoom dañoo jàpp ne. mel ni jamono biñ toll nii daal ni mbir mi di doxe nekkul li gën am na ñoo xam ne ñi tamit àttekat lañ dem nañ ba nangu ne euh, li ñu nekkoon baaxul te ni muy doxe nekkul ni mu gëne ba ñu démissionné bàyyi. bu ko defee nag bu ma amee loo xam ne lii daal maa ngi leen koy wax moo ñu jéem a soppi doxalin. am doxalin boo xam ne bi dina méngoog li nit ñi di séntu ci ñoom. justice bi franchement xàmmeetuñ ko xàmmeetuñ indépendant wu du tout indépendant wu du tout parce que dañ si gis ay injustice yoo xam ne yow doo ko comprendre ba si ñu ñuy tëj lu yàgg kenn du leen jugé ba euh, parfois ay délais yu ñuy def yoo xam ne duñu def euh, am assez épreuve pour condamner yëpp loolu yëpp metti na da ngay gis ko jug prison la xam ne jaaxal nan la ñi ko doon enquête lan lan la ko war a motiver kii indexé noonu pour tëj ko. ci loolee sax Amnesty International ragal ci jongante atum 2019 yi ñu dëgmal bu fekkente ne doxalin bi la ñuy topp. kay mun naa wax kuy discréditer justice luy luy discréditer justice mu utilisation bi nga xam ne moom la ki jiite réew mi di def ak parquet bi. kaso bi dina ko feesal ak ay opposants lu ëpp ci askan bi dañoo gëm ni justice mënatul nekk fii. mënatul yemale nit ñi boobaa <laughs> mais justice dootul mën a tranché ay différents politiques suppose que ñu dem ci ay élection moom ay problème eh ñoom koy tranché mooy attakat yi nga xam ne tey dégg nañu lu nekk waaw loolu moo doon dox Zaïre ci jamono Mobutu <laughs> loolu moo doon dox ci dëkk yi bëri yoo xam ne eh, ci guerre civile la ñu mujj. ngir saafara li ni mel ñenn ñi gis ne faaw njiitu réew bu Sénégal def kem tolluwaay kattanam ngir daal di joxe. justice gëddëm. waaw crise de confiance boobu principe bu démocratie lay dàq léegi nag lan mooy saafara bi saafara bi defe naa ne loo xam-xam Samba Massamba gën la ko xam ñoom magistrat yi seen bopp nee nañu il faut que ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi mu wàcc bopp conseil supérieur de la magistrature kii ñu taftal ci moom di jëwriñ ji gàllu lépp lu jëm ci wàllu yoon di maître euh, du di di en tout cas Ismaïla Madior Fall moom tamit foog mu jógee ci conseil supérieur de la magistrature mais ma defe ne yoon bi xàll nañ ko ba pare parce que ci démocratie effectivement séparation des pouvoirs dafa am. lu munta am fu mu toll nii. IMS sax daal di nakarlu kàddu yi nga xamante ne ñoom la ñuy yëkkati saa su ne jëmale ko ci justice bi li ñu bëgg mooy ñu bàyyi leen ñu def seen liggéey ci seen tey bakkan. loolu yi di ñu may ñu wax ci wàllu politique diwaanu Tëngéej doonoon célébré yooni militant ak responsable APR yi nekkee foofee ca diwaan ba ab ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon ci njiital Aminata Touré ak Omar Gueye mi député ngir waajal nag élection présidentielle yi di ñëw ndaje moome Nazib Sagna lañ fa yebaloon waa APR nekk fi si Tëngéej dañ daje pour mën a xalaat ci lu ñuy def pour président Macky Sall mën a gagné premier bi yoo xam ne nii ndaw yi ñoo ko jiite Mimi Touré koo xam ne nii moom lañ njëkk jox kaddu mu wax si lii. yàgg ngeen am taxawaay bi ngeen am tey moo tax tey bi ñu ñëwee fekk leen fi yéen ñëpp ngeen mobilisé wu tous comme seul homme pour mën a dem fi nga xam ne fan la ñu war a àgg te monsieur le ministre jiite ko fii coordonné ko ci département bi mooy la campagne de parrainage bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal xam naa ne nag. gaañee ca beneen côté tali bi dinañu way ñi commencé nañu parrainage dara xewagul ci préparation la ñu nekk nañu tey préparation rek la lii galo de sera parce que am naa lu wóor mooy bu fekkee ne bés ba jot na bu ministre de l'intérieur signé son arrêté ba jox ñu le formulaire bu boobaa yéen ñëpp vous allez ngeen sol seen parce que nag la jeunesse mooy ñiy voté. coordonnateur départemental Omar Gueye moom nag mu jëlee kàddu lu mu wax moo di tey war nañu booloo seen doole ngir mën a falaat président Macky Sall ci premier ñu bàyyi xeex ñu bàyyi xuloo yoo xam ne ni amul njëriñ pour parti bi. dans toutes nos collectivités locales nous devons mouiller le maillot. ma ni quel que soit ndombo tànk ñu am dañu war a disponible. dañu war a ubbi suñu téléphone yi dañu war a ubbi suñu bureau yi dañu war a ubbi suñu kër yi di recevoir militants yi di waxtaan ak askan yi di leen wax lan la président Macky Sall liggéey ñu jox ñu jox ko au deuxième mandat nous ne devons pas perdre notre temps sur des querelles inutiles pourtant man kenn du ma dégg mais mais ma ne borom doomu tànk yi borom cër yi ñu joxe président jox député Souleymane Ndoye nag moom nag doon na tontu sax ñoo xam ne nii tey dañuy attaqué seen coordonnateur lu mu wax moo di tey liggéey coordonnateur départemental wane na ni que parti bi mu ngi dox fii si département bi. ce qui se passe ce qui se passe à Rufisque est intolérable on ne comprendre que des jeunes instrumentalisés s'attaquent s'attaquent à un ministre de la République qui a la confiance du président de la République. Nous interpellons à ce sujet même le président de la République qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce département, Ce qui nous intéresse dans ce département, c'est d'élargir les bases du département comme le fait le ministre Omar Gueye. président Macky Sall waa COJER nag dañu daje pour mën a xalaat te xool tamit lu ñuy def pour mën a gañaloo président Macky Sall fii département bi ci premier tour. office nañu sa ñaareel tuuti naan fajri. jaajëf Nazib Sagna commune yu Njaareem Limaamu Laay ci njiital Mamadou Bay di say mi mer ba laxasaay nañu ba dëgg nag fa yéene xeex ak xale yi ñàkk seen bakkan saa su nekk ci géej jilee ab ndaje nag mu yaatu moom la ñu wàtte woon dajale woon imam yi seef de quartier yi sëriñu daara yi ba ci ndaw ñi ngir ñu waxtaan xool pexe ak yoon yu war a mën a jaar ba dakkal jile musiba. Mbaxaan Xaya ab conseil municipal nekk ca mairie ba ñu féetaloo ko lépp lu aju ci wàllu éducation am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. waaw tey euh, maire dafa woote ndax dafa gis euh, lab yi gën a bari lool lool ci géej ay fan yi mu woote ngir ñu bokk waxtaan sottante xalaat kenn ku indi li nga xam pour ñu ànd xeexandoo lab yi pour que mu bañati fee am mbaa bu amit mu wàññi lool. ngir loolu nag. woo na li ko dale ci imam délégué de quartier sëriñ daara ba ci gone yi gën ndaw muy jeunesse bi woo na leen ñoom ñëpp ñu indi seen xalaat bin dajee waxtaan ba pare nag lañ ca jëlee résolution lañ jàpp ne moom lañu war a jëfee mooy dina def ay campagne de sensibilisation maanaam dugg ci kër yi quartier yi waxtaan ak ñëpp pour yee leen pour ñaax leen ci ñu moytu géej gi ndax géej gi sangu fa danger la te dañ koo tere. dina dina mobiliser ay volontaires ñu jalonné côte bi li ñu concerne suñu commune ñu taaw fa jalonné fa di surveiller xale yi pour ñu bañ a sangu mais dinañ jàppale aussi ci traverser route bi qui est aussi dangereuse. dinañ invité nañ invité na police aussi pour mu def ay ronde bis bu nekk ci plage bi pour surveiller plage pour xam police ni ñi ragal nañ ko au moins bu fa nekkee kenn du sangu te dina tax sax. par de coach agressif dafa doon taxawaalu sax xam ne wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi comme ni ñu koy baaxoo di defee caat mu nekk institut Ahmed Sakhir Lo bu Bun ñu ngi doon sargal ak a neexal seen ndongo yi mokk ren ci alxuraan toll nañ nag ci téeméer ak juróom-ñaari ndongo mu doonoon ab xew-xew bu mag dajale woon ndongo woy juru ndongo ba ci ay kilifa yu takku Mouhamed Niang mooy njiital dara ji am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teew lu ko ci micro Théodore Semedo. li ñu liggéey ci année bi yëpp. dañu koy daal di dajale ci penc mi joxaat ko pénc mi ñuy liggéeyloo tey nag ñu daje woon fi war a jox penc mi jébbal leen téeméeri kaang ak juróom-ñaar ñu mokkal alquran waxuñu wàcc waaye itam jébbal leen trente maanaam fanweer ak benn ci ñoo xam ni am nañu baccalauréat bu bu bu bi maanaam bac national eh, ak eh, ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ni am na ñu brevet ak cinquante deux personnes yoo xam ni def nañu certificat te seeni résultat euh, jeex a euh, génnagut loolu lañ doon jébbal penc mi penc mi ak fukk ñaar ñoo xam ni am nañu ay licence ci ay jamiat maanaam ay université yoo ñii Arabie Saoudite ñii Égypte ñii Soudan ñii Tunisie euh, ñii ci yeneen réew yi ci des ñu góorgóorlu ba bennoo bennale kàddu yi bennale sàppe yi waaye itam ñu góorgóorlu ba ak dal am ci réew mi loolu nag alquran def cee gindee lu bare bare bare bari ndax alquran dafa ñëw pour teg nit ñi ci yoon wu baax woo xam ni mooy tax ñu am dund neex moo tax yàlla ni ku ko won gannaaw da am dund gu naqari wa man arada an zikri fa inna lahu maisatan danka loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci kii di Mouhamed Niang mbokk yi kon ci foofu lee ci la ñuy tàbbisee ak ci xibaaru bitim réew yi dañ ci ànd ak soxna Khady Sylla Côte d'Ivoire président réew ma di Alassane Ouattara jël na ndogal daal may liberté ki nga xam ne mooy Simone Gbagbo te nekkoon première dame foofu ca Côte d'Ivoire moom mi ngi daal rotal kàddu yi ginnaaw benn discours à la nation bu mu amal démb ci guddi nga xam ne tey ci mardi bi la ñuy daal seen feetu indépendance naam ñu bare nga ko doon xaar ci mu daal wax ci biccoog mbaalo bi nga xamante ne moom la nemmeeku ci partem te nga xam ne fii ay weer ñu ba aadama ñu bari ci ñoom nekkoon ci régime Laurent Gbagbo daal di leen may afiya jamono yi ñu bari sax euh, génn nañ ci kaso yi lu waral ndogal lii ñëpp njott nañ ni jàmm ba nga xam ne moom la fay woote weer yi ñu génn dafa mel ne jëmmal na ko ci décision bi ca Zimbabwe dafa mel ne coow buñ fa nemmeeku lundi ci élection présidentielle nga xam ne ZANU-PF la ñuy wax ni moo daal di jël raw gàdd bi ba léegi jeexu fa ndaxte police jël na ndogal ni day topp lu toll ci juróom-ñeent responsable te ñu bokk ci alliance opposition bi di MDC ndax dañ leen joxoñ baaraam tuuma ni dañ fa daal di inciter ay nit ngir ñu daal di def ay manifestation yoo xamante ne dara tegu ci yoon ndax amuñu ndogalu préfet juróom-ñeent opposant yooyu sax ñu bari daal dañu daw làqu ci dëkk dëkkaan yu wër yi nga xam ne mooy na leen topp ndax nee na ñoom dañoo nara a indi fitna ci réew moom ginnaaw résultat présidentiel yu rotal ni ZANU-PF moo daal di euh, jël raw gàdd ci élection présidentielle ba loolu président réew mi di Emerson Mnangagwa waxoon na leen ni képp ku fa bëgg a indi fitna yoon dina la daan opposition ba ak organisation société civile ba sax ñoom méttatu nañu bu baax a baax jamono ji ni nga xamante ne mooy force de l'ordre ni ñu fa amalee di xupp nit ñi waaye itam di fa campagne boo xamante ne dara wundu ko lu daal di tëj ñi nga xam ne ñooy manifestant yi États-Unis rawatina ca Californie lakk bu metti lañ fa nemmeeku ñaari nit ñàkk ci seen bakkan depuis dimanche ba léegi daay yi nga xamante ne lakk na ay tool yi tool waaye tamit ay kër yu bari ndax buñ ko xayma toll na ci 114 850 hectares ñoo nekk doom ñu xayma ko mi ngi mel ni nga jël ville bii di Los Angeles daal di ko euh, def dóom mu di lakk loolu lañ ko mën a xayma kon mu nekk perte bu bari bari ci euh, États-Unis jamono ji te fu mu toll nii service bi nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp loo xam ne mbirum lakk la muy kol Fire waaye nee nañu pour ñu mën a maîtriser lii nga xam ne mooy daay bi du yomb benn yoon ndaxte ngelaw bu metti bañ fa nemmeeku tax na liggéey sapeur pompier yi daal di jafe bu baax a baax. kon mbokk yi ci foofulee ci la ñuy tàbbisee yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéene yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëy opposition bi ne soobu nañ ci combat diplomatique maanaam fépp la ñu nar a jébaane doxalinu nguuruk Macky Sall jot nañoo diisoo démb ak ambassadeur bu union européenne fii ci ndakaaru jot nañ ko yéggee processus électoral bi yéggee nañ ko jafe-jafe am ci parrainage bi ba ci jafe-jafe askanu Sénégal Walf Quotidien ne ku jeeg bi lu ko dalee ci Omar Sarr Abdoul Mbaye Malick Gakou Mamadou Diop Decroix ak Mamadou Lamine Diallo ak ñeneen ak ñeneen alxamis bi ñu jëm ci la ambassadeur bu États-Unis fas yéene dalal ku jeeg bi Mamadou Diop Decroix ay ka kàddoom ci Walf Quotidien xam le leen njiitu réew mi Macky Sall ay pexeem weesuwul tëj ràpp yenn ci candidat yi xañ leen élection ak lébëj carte yi maanaam jalgati élection yi ñu jëm yéene kabi di les di ñu xamal ne ci bi am nañu tiitange lool ci réewum Sénégal gis ne Sénégal ci waxtu wii le ab cin la guy baxee fu ne bu ñu moyul kaw diir ga mun naa tëb saay su ne maanaam Sénégal mu ngi ci guddi gu bër setagul ku jéeg politique bi ne réew mi bu ñu deful ndànk mun naa tàbbi ci fitna si di kenn ci ku jéeg politique bi xamle ne jóg jot na jot nañ ko waxtaane kilifa diine yi démb waxtaane nañ ko ndaw gi fi teewal Union européenne fii ci Sénégal Habib Si ne jukkil nañ ko lu tolloog juróom-ñetti poñ yi tënk jafe-jafe réewum Sénégal keneen ku tënk jafe-jafe Sénégal ci benn baat di Thierno Alassane Sall valeur ay kàddoom ci 24 heures Thierno Alassane Sall ne Sénégal gi ñu ne Sénégalu pénurie la maanaam loo fi laajte ñu ne amut ndox maa ngi ni amut nga laajte kaaraange ñu ne amu fi nga laajte école yu doy ñu ne amut nga laajte bërëbu fajukaay yu doy ñu ne amut Thierno Alassane Sall ne nii la réew Sénégal bindoo ci nguurug Macky Sall gannaaw juróom-ñaari at saay su ne nguur gaa ngi dëkkee di ab ay milliards mbuboo askanu Sénégal te yooyu le milliards askan wi duñ ci gis dara Thierno Alassane Sall ne ba tey xiif gaa ngi ne këtt ne jonn njaboot gaa ngi lott lool réew mi foolaal fépp Dieng njiital PSD jant bi lu ko metti ci Sénégal wax na ko ci biir yéene kaabi di laas Mamour yu dul jeex ci wàllu ndox mi jot na mu dakk njiital PSD jant bi Mamour Cissé ma ngay leeral ne lu des ci élection présidentielle yi ñu jëm maanaam fileeg juróom benn weer nguur gi munta jox ndox mu doy askan wi maanaam jafe-jafe ndox mi mun munta dakk Mamour Cissé ne ana année sociale bi njiitu réew mi Macky Sall digoon askan wi tey at maa ngi nii askan wi mar nañu naan lool te gisuñu ko l'évidence ne ñàkkum gi ni mel jur na bu mag ci njiitu mi Macky présidentielle 2019 te robinet yi munaguñoo xelli yéenekaay bi gis ne bu ñu deful ndànk askan wi mun nañu yóbbaale merub ñàkkum ndox mi daal di ko sippi njiitu réew mi Macky Sall yéenekaay bi ne bu weesoo ñàkkum ndox mi bokk na ci candidat yi tàmbale yéglu ci yooyu la wote bokk na ci Idrissa Seck ak Cheikh Adjibou Soumaré libération xëy dalal njiitu mi Macky mi wax ne xam na bu baax ku jéeg politique bi te nekkoon ak moom démb la amoon amatuñ ko tax ñu bëgg a xëpp suuf ci cere ji mi Macky Sall xamal askan wi ne bile opposition maanaam ku jéeg politique yitteel ana lu yitteel gouverneur bu palais mu ngi ci biir yéenekaay bi di l'Observateur jël na matuwaay ya ca war jëm ci ubbite maanaam inauguration Dakar Arena Tour yéen a cabinet kaaraange gu mat sëkk lañ ci nar amal espace VIP ba ñenn ci ay directeurs généraux ak ña ca des duñ ca mun a teg seen tànk yéen a cabinet enquête xëy teg tànkam ci projet DER ma ñu ne financement ba yemb na yéen a cabinet lu tolloog fukki milliards njiitu mi Macky jot na ko ca jukki démb jagleel ko ay ndaw réew mi muy góor ak jigéen lépp ngir xeex ñàkkum xëy bi njiitu réew mi Macky Sall ay kàddoom ci biir yéen a cabinet di génne ci fanweeri milliards jagleel ko askan wi politique la xasuwu ca yéene kaabi di la koti financement banque lañ koy jaarale gannaaw fukki millions yañ ca jukki nar jur lu tolloog fukki junneeg juróom ci ay clients yu banque yéene kaabi di la ci googule ndaje di ñu xamal ne njiitu mi Macky joxe na démb financement ya toll na ci fukki milliards lam ca yokk moo dina fileeg ñetti weer daañu jukkiwaat lu tolloog ñaar fukki milliards la jur ci réew mi dina tolloog ñetti junni xëy yéene kaabi ñoo am xëy ca Auchan bu buñ ko fi taxawalee ci diirub ñetti at njiital UNACOIS jàppoo di Idi Thiam xamle ne Auchan bile du ngeneel ci réew mi moo gën a yees lii di jàngoro sida Mamadou Dia di consultant bancaire gis ne Auchan defi war a des ndax ngeneel la ci koom-koomu réew mi soxna Sidi Astou Fall jàpp ne Auchan ngeneel la ci njaboot gi Youssouf Faye di jaaykat gis ne coow li coow li mooy Auchan du leble te ñoom jaaykat yi ne ci marché yi saay boo yitewoo ñu lebal la yéen a kaabi di ñu dégtal baccalauréat ren ji yéen a kaabi ne demee noonu ndax téeméeri candidat fanweer ak juróom-ñeent ak lu teg ñoo am lijaasa baccalauréat ci at mi Sawru seen jiital SAEMS ne yile résultat ci at mi le doon na lu leen metti lool Abdoulaye Fane di président UNAPES di kuréel gi boot waajuru ndongo yi gis na yëf yi tar na lool te njure fi ni mel doonu lu leen bett ndax ni année scolaire bi bindo Cheikh Mbow bu ko si deb ne li xew ci examen baccalauréat ren ji ak njure fi ci am war naa tere nelaw ku ne yéen kabi di zoom info ne ndax Modou ay nelawam dina jeex ci bile combat digganteem ak Balla Gaye 2 Lamine Samba bu joxe na ci xalaatam xam le ne diggante Balla Gaye 2 ak combat bu dangereux lay doon maanaam lu ne mun na cee xew lu ne mun na caa tukkee Lamine Samba ci suñu la ngoog ne ku daanu waaye ñoom ñaar ñi le kenn ku ne daanu waru la ci bile combat jërëjëf jërëjëf euh, Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo jàppoon ci xibaar yi bu mu yemb Modou Fall moo fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane ak soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké ci kàddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba bon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanug Sunugal yendoog jàmm